Voilà, très bien, docteur Amadou Diaye. patient bu FONGIP également di nekk gynécologue tey mu mel ni Sénégal mu ngi ci li nga xam ne moom mooy euh, mbas muy coronavirus di Covid 19 nekk loo xam ne jaaxal na askan bi yëpp ci li nga xamante ne tey moom mooy suñu réew. mu mel ni ginnaaw état d'urgence bu président décrété woon couvre-feu bi yokk nañ ko ba le 4 mai mu mel ni ci wàllu sensibilisation ak wàllu jàngoro bi yéen ñi nga xamante ne day kër docteur ñu bëggoon tey docteur indi rek xalaatam euh, ci li nga moom mooy mbir mi. di sant di wax nag ne fii mu ne nii nit ñi war nañu jaaxle ndax mbas bi ñuy wax coronavirus dafa jéggi dayoo ndax ñi nga xamante ne fala njëkk muy dëkk yu mel ni Chine dëkk yu mel ni France bi yoon Italie Espagne États-Unis mu dëkk yoo xam ne seeni moyen ak seen i jumtukaay yoo xamante ne ci mbirum euh, wér-gu-yaram kenn du ko nattable ak sunu bos ndax fi ñu rawee fas mënu ko daw kon ñooñu suñu demee ba feebar bi lëmbe ko ba fa ñu ne ñoom mu weesu seeni i kàttan ak seen i capacité ñun suñu amee xel dañu war a yeew di remercier bu baax président de la république pour mesure hardie yi mu jël parce que c'est pas facile mais également mesure d'accompagnement yi nga xam ne moom la jël mais nit ñi dañu xamagul sensibilisation yi ci biir nit ñi moo des parce que ba léegi man maa ngi dox maa ngi gisanteeg nit ñi mais taxawaay bi nit ñi war a taxaw ku nekk ci sa bopp ci mbirum feebar bi dafa des ci lu bari kon ñuy gën a ñaaxaat askan wi pour ñu xam ne fii lii ñu jëm lu am solo la li nga xamante ne moom mooy li nga xamante ne mooy Covid su dalee suñu kaw nu mu dalee ci yeneen dëkk yi ñun amuñu moyen pour def ko pour jàmm jàmmarloo ak moom. nit ki nag koo xam ne bés boo làmb joo xam ne ki ngay bëreel moo la man moytul làmb ja kon ñun ñoo war a góor góorlu moytu ñun ñi sensibiliser ku ci nekk nekk ek de sensibilisation ku ci ne na nga waxtaan ak ñi romb koo gis nga wax ak moom yee ko ne ko mbir mii. mbir mu doy waar la ndaxte attanuñu ko moo ñu man ki nag xeex ak ku la man moo tooñ ku la mën a yem ñàkk jom la ñun nañu moytu loolu laa doon wax di ko gën a ñaaxaat askan wi di leen wax nag nañ def attention ndax mbir mi su xasee ba dugg ñun duñ ko mën a téye suñu dund ci boppam moo yaatal mbiru feebar bi dañuy saafonte kër yi xat nañu nit ñi dañuy dem ak dikk amuñu lu ñu téye suñu kër pour confiner wuñu maanaam kon ñun daal ci gàttal mënuñoo jàkkaarloog maladie nag nit ñi gën a jël seeni matuwaay jël distance euh, jël distance sociale yi moytu saafonte bi di raxasu di nettoyé wu di wut ñi nga xamante ne mën nañ ko ñu am ñu jël euh, wut euh, ay masque yooyu yëpp dañ ko war a def pour que ñu mën a téye feebar bi maanaam cas communautaire dafa di mooy ngay xeex ak loo gisul xam nga mbëri bëre lu la waa ji ëpp doole mën mais soo ko gisee sax mën nga koo moytu mais koo gisul moytu ko du yomb fii mu ne nii nag kaa communautaire jéego bu bees ci biir feebar bi ndax feebar bu njëkk bi dañ doon wax un contact dañ doon wax importe lu lu mu metti metti ñu ñu xam la ke koo xam maîtriser ko mais ki nga xamul maanaam muy man muy yow ki nga sa jabar bi nga nekkal kenn lépp ñëpp la mën a doon te tey jii communautaire bi commencé na dugg ci biir askan te léegi su xasee ba dugg ci kër yi sunu dund moo ko mayul kon nañu gën a maytuwaat nit ñi nañu xam ne que jéego bu bees dugg na communautaire ñëw na communautaire mooy kenn xamatul kan mooy kan ku xamul kan mooy kan nag dawal ñëpp na ku ne jël matuwaayam ñu moytu nit ñi ku ne moytu sa moroom jël distance euh, méthode barrière yi di bàyyi nuyoo waxta ñi nga xam ne amuñu li ñuy def ci mbedd mi te lañ dulul ñu des seen kër il faut que nit ñi des seen kër parce que lenn moom am na président mu ngi jël ay mesures mais suñu continuer nit ñi euh, cas communautaire yi continuer confinement lañ jëm te confinement moom mooy ku ne des sa kër te doo génn des sa kër te génn ci kër yoo xamante ne yenn saay juróom fukki nit a ngi nekk ci benn kër moom mooy maar de taali nit ñi amuñu lu ñu dunde muy maar de taali na nit ñi xam su fekkee ñun ñi nga xamante ne yàlla dafa def suñu jàng ci loolu la suñu xel ci loolu la màcc ñi ngi tiit mas sama ñi nga xam ne ñi ngi ci kër gi te xamuñ ci dara di ree kon nañu moytu cas communautaire yi moom mooy beneen ak paa bu bees la te pas boobu mooy poids bi gën a grave ndax benn kaa communautaire mën na dajeeg 100 wala 200 personnes tandis que cas contact yi ñu xam la moo tax daal ñu leen di gën a ñaaxaat ne leen fii jéego yi ñu jël muy jéego yu gën a graaw te jigéen bu su gënee graaw nga jël matukaay bu ni toll. alors très bien docteur fu mel ni Touba fa la jàngoro bi jaaree euh, Touba tey bu ñuy xool région yi nekk Sénégal yëpp euh, mel na ni jàngoro bi am na fa recul wala bokk gis mais tey Dakar nga xam mooy capitale bi gis nañu ak mbir mu ngi fa ba sax cas communautaire yi déclaré ba Kër Massar 4 millions tey yow doon joxe ci wàllu euh, ay xam nga lenn dafa nekk taxawaay Touba ba fa feebar bi ñëwee sëñ bi ci boppam moo génn joxe ndigal ndigal nag taalibe foofa jëfe la ko xamee mais soo ñëwee ci Dakar. ndigal amu fa njariñ moo tax nit ki koo ko digalit ku ne def lu la neex moo tax su xasee ba dugg ci yenn quartier yi nga xam ne quartier populaire la yi ma wax sànq nga xam ne di dëkkante bi dafa xat nit ñi bari macha allah promiscuité bi pauvreté bi fa la ëppee su xasee ba dugg dina fa def wu lay ñaay yàlla nañ ci yàlla musal moo tax ñu leen di gën a ñaaxaat ne leen fii nangu digal mën naa deltu ginnaaw mais su fekkee nit seen bopp ku nekk yaa ngi doxale sa cëgal guy moom mooy indi saa lii nga xam ne moo am ndakaar te tey jii ci biir soo gisee li nga xamante ne dafa mel ni di dellu siwaat la ñu doon am ci njëriñ su ñu deful ndànk dinañ ko perte ndaxte dem ak dikk boobu nga xamante ne ñi ñaa ngi koy def te di ko def ci li nga xamante ne defuñu ko ci yoon moom mooy indiwaat feebar bi te su duggaatee noona maari de taali dina indi li nga xamante ne mooy safaan kon tey jii xam ne que li monsieur le président wax na ci bàyyi xel l'heure est grave man nag nee naa l'heure est grave man maa weesu naa ko l'heure est très grave laa nekk kon nañu ñu moytu. alors euh, docteur cas communautaire yi ba léegi donte ne Dakar lañ dem dëkk bi ci jaww bi ak li nga xam ne mooy géej lu ak ni mel mais tey bu ñuy xool ci wàllu autorisation yi ñuy joxe maanaam ci circulation yi ci de région en région wala de commune en commune am na ay jafe Touba wax nañ ko muy taxi bi amoon na fi ñoo xamante ne dañ daan sax am na li lan nga ci ñaax loolu laay wax ma ne nit ñi balaa ñuy wax autorité yi nit ñi seen bopp ñoo war a njëkk bàyyi loolu bëgg régler sa problème maanaam xool sa sa li saafara sa sa problème mu bopp ba rey ba lànk ba ba ba askan wi loolu rafetul ku nekk tey li ñu laaj nit ñi moom mooy. ci fukki fan juróom yii di ñëw jàpp fanweeri fan nit ñi jéem a téye seen bopp moo gën tey ñu dem ba nga xamante ne dañuy nekk ci confinement te suñu eggee confinement armée mooy génn kenn dootul génn ñi ñëpp nekk seen biir kër maar de taali nit ñi dinañ waxuma sax garab feebar bi mais xiif mooy rey nit ñi ndaxte président mi ngi dimbali mais li ñuy wax ne bërëmu dajul suuf li ñu askan bi yëpp kenn mënu leen jox ceeb ak lekk ak dundu pendant plus de 40 jàpp un mois deux mois ko kenn mënu ko kon na nit ñi xam ne que nañu moytu li ñu leen di digal du parce que dañ leen a bañ li ñu leen di digal du parce que dañ leen a bëgg sonal wala dañ leen bëgg métital ndax dafa fekk mooy li gën ci ñoom gën ci ñun na ñëpp te seen bopp gàttal tànk yi toog seen i kër te moytu daw beeg dikk bi dem ak dikk bi ak saafante bi moom mooy li nga xam ne moo ñuy indi sa euh, feebar bi moo koy euh, yaatal te yaatal feebar bi moom mooy li nga xamante ne mooy askan bi mooy leen di lool mu mel ni tàkkalante jënd saakonte weer li ni mel am na tamit yeneen mesure préventive yu kër doktoor joxe muy eh, ci wàllu sel ak ndox ak saabu ak yi ni waaw xam nga loolu moom mooy les méthodes barrières maanaam nan la ñuy def ba bañ a laalante wala jegente ba mu ëpp. loolu tey wax nañ ko fépp ñëpp xam nañ ko ti soli wala sa ci sa bag ci sa eh, conc bañ a nuyoo bañ a eh, demalante. jaxasoo bi bañ sa saafonte bi di raxas say loxo di am ci alcogel bi di sol masque soo ko mënee yooyu yëpp nit ñi ñi ngi koy wax ci rajo yi macha allah journaliste yi tamit ñi ngi koy wax ñi ngi koy yeete waaye am na yu ndaw yoo xamante ne nit ñi xamaguñ ko ñu mel ni tey maa ngi gis nit ñaa ngi yor seen soccu soccu mooy li gën a gaaw pour yaatal feebar bi ndaxte soo génnee sa biir kër yor soccu laal nit même soo laalul nit laal fenn fu keneen laaloon muy nga chaise boo toogoon muy feneen fu nit ki teegoon nga pare sans nga raxasu nga jël sa soccu soccu maar de taal yi yaa ngi indi sa bopp. soo jógee dox ci mbedd mi sa tànk say dàll laal lu ne ba pare nga duggaat sa biir kër ak dàll yi dugg ci biir kër gi loolu tamit beneen problème la ay yu ndaw la yoo xamante ne nit ñi bàyyiwuñ ci xel mais yu extrêmement grave ndaxte. Covid bi muy garab fe virus bi soo ko day dem ci jaw ci jaww ji mais du dem fu sori mais day daanu su daanoo nga dox ci da nga ko yóbbu moom moo tax ne nit ñi moytu tey jii am na ñoo xam ne ñu bari ñu ngi dem si jàkka yi terewuñu kenn mu julli waaye nga dem ci jàkka su jóot sëgg jël say ñaari loxo yi nga xamante ne am na si peut-être doomu jàngoro mu ngi ci say loxo nga te nga rëpp ko ci ci kaw euh, tapi bi sëgg ci kaw tapi bi di wax sa tifli di laal tapi bi say jë di laal tapi bi sa bakken di laal tapi bi te tapi yi synthétique la te tapi yi synthétique la kon day jël euh, virus bi ci diir bu gàtt bu gudd dina dem ba juróom-ñeenti wax waxtu ci diggante boobu keneen ñëw na fa julli ngeen ngeen ne ñu ngi julli raxasu nañu mais nga raxasu mais keneen ki jiitu avant yow ba muy wax ci ci di ci tapi bi ma ma ngi ciy tifli tiflit yooyu yow it nga ñëw sëggaat ci maari yi su ñu ne nit ñi toog leen ngeen toog seen kër julli toog seen kër julli bi day tax yow doo lor sa sa moroom te ñàkk lor sa moroom moo gën a ëpp yoon fuuf ngay dem di julli ci jumaa joo xam ne ne wala ci jàkk joo xam ne dingay ngay lor keneen que nit ñi bàyyi xel ci loolu du problème mu diine problème mu santé la te suñu tolloo ci santé fii na ñi nga xam nañu wax mais ñi nga xam ne xamuñu ñu toog loolu laa bëgg di ñaanaat nit ñi di leen ñaax ñu moytu